muy Tawfekh ju kenn xamul fu mu yem. ngir jot sunu ay vidéo dangeen fii ci seen chaîne YouTube Tawfekh Production ngeen bës cloche bi. bi nga xamante ne tey jii waa Touba euh, la ville de Touba Serigne Mountakha Bassir ñaanal ko yàlla na fi yàlla bàyyi ko fi yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam mu njaboot gi ba ci kanam ni muy taxawalee Cheikhul Khadim euh, yàlla gis na ko yàlla na ko yàlla may mu réussir mission bi. ni ko ay magam yi ko jiitu ak kilifaam yi ko jiitu defee ci barke Cheikhul Khadim ñu ñëwoon rek euh, waxtaan ci modèle économique ak système économique bi nga xamante ne fekkoon na ñi ko jiitu def ko moom mu ñëw yokk ko ñu gis ni tey jii Touba sa kanam am na benn initiative boo xamante ne lancé na ko am na benn projet boo xamante ne indi na ko ñu koy wax participation kenn ku ci ne dugal loxoom ba pare li ci am solo mooy montant bi nga xamante ne moom ngay dugal lu waay ñàkk-ñàkk lu waay mën a di mën a di soo góorgóorloo sax ci ñaari weer wala ci ñetti weer mën nga ko joxe parce que boo amee benn pot booy sànni ñeent fukk juróom fukk bu matee bu yàggee di nga ko envoyé dugal ko fa nga ko war a dugal noonu la ñuy xaaree ñun suñuy nguur di xalaatee c'est-à-dire système économique bi nga xamante ne la ville de Touba teg na ko man dama jàpp ne ne modèle la boo xamante ne waxuma les foyers religieux yi nekk Sénégal mais tout le Sénégal dañ ci war a inspiré wu. loolu gis nga bés bu ñu ko defee pendant deux ans trois ans Sénégal toutes les localités dañuy développé parce que loolu moom mooy xalaat ci àdduna nit bu fekkee dafa def benn projet. def loo xamante ne dafa rentable def loo xamante ne dafa am vision yow da koy copier da nga koy copier rek automatiquement nga xool rentabilité bi lan la lay indil pendant un an pendant deux ans tey jii su ma joxee exemple jëlatuma sax des foyers religieuses jëlatuma état mais le projet de Touba sa kanam tey ji nañu admettre benn ville bu nekk wala benn quartier bu nekk rek appliquer ko. Sénégal da ngay gis benn quartier lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti dina am benn cent cinquante mille voire deux cent mille habitants deux cent mille habitants ñoom bu ñu organiser woon mais mën nañu defar seen gox les autres foyers religieuses aussi def ko état accompagné mais li neex aujourd'hui ci Touba ca kanam mooy ñoom ñooy dem de leur propre zèle taalibe yi ñoom ñooy ñëw kenn ku ci nekk indi sa participation loolu benn modèle économique la boo xamante ne amul ci monde bi c'est-à-dire bu ñu di complexé bu fekkente ne ñun ñu ngi gëstu ci information et cetera amul benn dëkk ci àdduna boo ko gis man à ma connaissance et recherche mes recherches gisuma ko c'est de l'innovation déjà tiitar la woon ci sunu nguur tiitar la cëpp képp ku yeewoo Sénégal maanaam benn forme de modèle économique boo xamante ne la économistes yi sax jàngale ko tey ay thèse u Karl Marx ñooñu ñëpp waxuñu la genre xeetu thèse boobu kon ce qui fait Touba sa kanam non seulement dafa ñëw ak jamono mais dafa ñëw ak tolluwaayu réew mi ñu amoon ci tamit contribution boo xamante ne pourquoi pas parce que gis nañu ne Touba ca kanam tey jii participation yi am na ci yenn réseau yu muy jaar pour egsi am na ci yenn euh, béréb de transfert d' yu muy jaar pour egsi ci ay xalaat mais war nañu mën a am suñu banque bopp c'est-à-dire Touba ca kanam war na mën a am benn banque boo xamante ne exclusivement banque Touba ca kanam la ay nitu diine ñoo ko seq sëriñ Muntaxa euh, bu joxee ndigal la am na nuñ koy calculer parce que am na ay économistes yoo xamante ne riba du ci dugg xaalis ba dana tegu na mu war a tegoo du doon comme banque yi nga xamante ne moom la ñuy gis boo xamante ne que ni carrément finalement ñoom ñooy gérer la chose de A à Z parce que pour le moment actuellement Touba moom day gérer rek la finalité collecter xaalis bi dugal ko fa nga ko war a dugal mais war nañu mën a nag dem foo xamante ne vraiment dañuy jëli xaalis ba ci seen loxo lay jaar dugal bi ci seen loxo lay jaar. collecte bi ci seen loxo lay jaar denc bi ci seen loxo lay jaar loolu après day permettre nag après ñu am benn plateforme boo xamante ne dafay bees mu doon lu yaatu man contribution boo xamante ne vraiment moom laa xalaatoon ne que ni carrément bés buñ ci réfléchir parce que am na ay économistes am na ay gestionnaires maanaam ingrédients yëpp daje na pour que loolu war a mën a am ñàkkul ne tamit kilifa yi ñu ngi ciy xalaat mais. Euh, bu doonee tamit xalaat bu gaaw wala xalaat bu ñu matérialiser gëm nañu ne dina indi benn soutien de plus benn apport de plus boo xamante ne Touba sa kanam dina ko indi comme nouveauté parce que aussi nañu reconnaître amul benn foyer religieuse bu am banque et te du yam ci Touba ca kanam ñeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yenn addiya yeeg yi nga xamante ne lépp Touba moom moo ko moom kon man dama gis ne ne Touba Euh, ni ñu góor góorloo doon ay jàmbaar gérer lu bari seeni bopp ay forage moo gën a metti junni yoon économistes yi buñ ci réfléchir dinañu ñëw ak benn proposition teg plateforme bi mu doon loo xamante ne dafay bees ba pare dinañu sax participer waat ci l'islam ci banque niñ ko déggee parce que boroom xam-xam yi nga xamante ne euh, jàng nañ ko xam nañ ne ne l'islam am na nu mu tegee banque mais ak banque yi ñuy gis duñ ci du nekkul sujet débat bi mais xam nañ ni que ni carrément intérêt yeeg ñoom it seen yi ci tegu bari na te ji Touba sa kanam bu ñëwoon teg benn banque dina doon benn banque bu moderne bu méngoo ak jamono méngoo ak diine yooyu daal la ñu indi woon comme contribution euh, di féliciter aussi ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci liggéey bi sénégale yi nekk dans la diaspora man de très loin damay gis liggéey bi sori na lool xam ne que ni carrément ay jàmbaar dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñoo ko seq te liy wax na ne ay jàmbaar a ko seq ñetti mbir la koy firndeel benn bu njëkk bi bokk na ci li ne yëf ni mu gaawee ni mu tegoo ci yoon ñaar bariwul coow te xaalis la te ñoom olof ñoo ñuy jàngal naan fu xaalis am coow am te pourtant xaalis am na coow amu fa yooyu yëpp ay njàngat la yoo xamante ne nit ñi war nañ ko ci mën a def xaalis am na fa coow amu fa wàllum leadership dañ naan fu mu am coow daf fay am pourtant leadership am na fa parce que loo gis dina am ku ko jiite te coow amu fa donc yooyu ay modèle la yoo xamante ne moom la ñu war a valoriser teg ko ci kanam gëm loo ko nit ñi war leen ne que ni carrément valeur mi ngi am ba léegi valeur mi ngi am ba léegi nit ñee ngi xalaat mën nañ la dénk xaalis mën nga yor njiit mën nga diriger mbir teewul nga ne tekk ne dégg tey di leen sant leen gërëm